70 ASC moo nekk Kaolack Ousmane Noël ci région bi département bi bàyyiwul kenn ñëpp solal na leen ay mayo ñun géwél la heure bu ñu ko gisee bu ñu joxee suñu baaraam wax bu ñu ñëw ci moom dañuy kuñ man nag yàlla daf maa booleeg moom mu nekk sama nit ñu bokk génération parce que nag dërëm ak dërëm ñooy ànd te wolof Njaay nee na xalangu dalul suuf waaye bu dul woon ñii tilimal ak ñii bale coow du bari kon Ousmane Noël l'espoir de Kaolack le lion de Diène ban nga wax population bi parce que lii kat ku ko joxe neexal nga taxaw si yow toñ nga yàlla suñu borom dañoo xam ne yàlla kum jox lu bëri dalaa séddaloo na ku ci nekk rek xam na lu la moo waral ba ñu yàlla dimbalee jox ñu as tuuti teraanga jox ko le mouvement MJK tey jii di bésum tabaski ñu ñu ñu koy waaj yàlla suñu borom am na ñu compal yàlla suñu borom. am na ñum jox li na gàññ waaye am na ñoo xam ne amuñ dara dara dara dara yàlla bindee noonu mooy defee noonu te yoonam newu ci waaye nag dañ ne ñu am dimbali ñu amul lillaay wa rasuuli te boo koy def kenn bañ a xam waaye lu baax nag di ko fësal rafet na lu bon la ñu war a nëbb yàlla suñu borom euh, je pense que ñaan dafa métti buñ la gàntoo nga rus buñ la mayee nga rus et donc waroon di xaar sax nit ki di la ñaan war nga mën def de tell sorte que dimbala jaamu yàlla may oo nag sama mbokk politiciens yi yi nga xam ne ñu ngi laqatu ne politique laqatu dafa xew yi nit ki boo ko soxlaa utiliser ko jël kaar jox ko ay xartum dawloo ko soo paree bu yi ñëwee nga fas sa kanam laqatu ko. Kaolack nga la gënal yàllay maye président de la république yàllaa ko may. le ministre Diène Farba Sall bu ñu dajee tey ko may et donc yéen tamit kenn gënu leen gëm leen seen bopp seen seen ñëw et donc ma ne yéen naa Kaolack ku ni le ministre Diène Farba Sall un homme ambitieux un homme boo xam ne dynamique un homme boo xam ne franchement liggéey la gëm un homme boo xam ne qui triche pas liggéey rek la xam mais kooku spontané kooku liggéey la xam et donc Kaolack kooku la soxla il est temps Kaolack changé politique politicienne bu bu salté ñu jox la 2000 francs jox loolu c'est fini léegi il est temps ñu jël wax dëgg dañuy nax duñu nax depuis Mathusalem ñu ñuy nax ñu ñuy nax Kaolack waaw c'était la deuxième ville du Sénégal Kaolack Carrefour la Kaolack ak lu muy indi recette yu muy génn yëpp mais Kaolack toujours reste toujours la même Kaolack mais c'est pas bien c'est pas normal et donc ma bëgg nag Kaolack waaye ma yéene leen le ministre Diène Farba Sarr le ministre Diène Farba Sarr bu téye Kaolack un an deux ans Kaolack sera comme Paris incha allah mais euh, Mariama Sarr wax dëgg yàlla ñoo bokk suñu li ñu def bokk même but bu ñu bëgg bokk le président de la république euh, bokk euh, lépp loo xam ne je pense que Mariama Sarr kenn gënu koo bëgg euh, falaatu le président de la république na président de bu ñu Mariama Sarr c' est du président de la république Macky Sall lu ñu wax rek mooy mu góorgóorlu parce que tamit Ousmane Ousmane su ma ne Mariama Sarr góorgóorlu parce que yéen ko place am bi parce que bu góorgóorlu kaw la waaye dañ ko fi teggi teg keneen parce que tamit man lu Mariama muy muy muy muy muy président de la république kaw la moom lañ gënal donc lu ñu wax mooy parce que Mariama Sarr jigéen la war na am yërmande ci Kaolack waay parce que Kaolack suuf Kaolack métti na et donc na góorgóorlu xool Kaolack nu mel ak nu meloon ba léegi mu def ci kéemtalaay kattanam liggéey Kaolack ñun du ñu ŋàññ du ñu xas parce que franchement euh, suñu papa suñu suñu suñu mentor suñu kilifa yarewu ñu noonu lu ñu xam ne mooy yar euh, tontu tontu boo xam ne ku ko dégg di nga xam ne waaye nag. Kaolack moo ñu gën a loo gis bu dé bu taxee jógee ñu fipp rek dinañ fippu waaye dëgg li ñuy wax rek mooy Kaolack daal yéen yéene naa leen ku mel ni Diène Farba Sarr Kaolack yéene naa leen ko waaw di gërëm ñëpp waaw dëgg yàlla di gërëm mbooloo mi fi teew di wax tabaski bi ren dafa euh, euh, dafa dafa ala dawme parce que suñu trois ans yi tabaski bi te tabaski c'est la le 22 et donc maa ngi gërëm mbooloo mi fi teew di gërëm euh, sama yaay yi di gërëm leen lawbe di di gërëm les novelistes les mouvements MJKDFS ah di gërëm euh, euh, euh, wax dëgg yàlla ñëpp a ngi taxaw yal yàlla fay leen yal yàlla gërëm leen yal yàlla suturaal leen mouvement MJK yal na ko yàlla def bi jaay Seydina moo xam ne mu doon mouvement boo xam ne moo gën a kawe senegal te di ñaanal yàlla suma sëriñ suma xarit suma wasila alaaji Ibrahima Niass Khalifa yal na yàlla yokk leeram wasalaamaaleykum wa rahmatullah bég rek ndax xam nga lan la Ousmane mi ñoo koy sant di ko gërëm ñoo ngi koy ñaanal tamit gudd fan ak wér gi yaram man de defal na ma loo xam ne wax dëgg yàlla mënu ma ko wax ndax dafa am sama mbokk bu jugee ci àll ba ñëw amul dara bëgg ku ko fajal doomam ba ma ñëwee ba ma ko waxee Ousmane tegu si benn baat dafa yëkkati xaalis bu weex tàll jox ma ne ma demal hôpital na liggéey faj ko kon xam nga loolu lu rëy mënu koo paase. Kaolack ba mu fi duggee ba tey wax dëgg yàlla am wu ñu dara lu muy def lu ne dina ñëw wax ñu ko lu muy wax tamit noonu ñun la njëkk a financé xaalis. ñu liggéey wax dëgg yàlla kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm ñu nag amuñu fayam yàlla mi am fay yàlla na ko fay. waaw xanaa kontaan rek waaw man maay Lamine Ndiaye bu MJK di le lion de Ousmane Noël Dieng waaw. bi yegg na ma foo xam ne ci sama biir xol ah. xar bii ma Ousmane Noël ci sama xol maak ngi yàlla rek ñoo ko xam Ousmane dama koy wëcceeg yàlla di ko ñaanal xale la moo xam li mu bëgg teraanga bii bu ma jox muy xar mi ci kanami mbooloom yëpp terale ma nii maa ngi koy ñaanal yàlla mu soxla moog la ministre Diène Farba Sarr ak le président Macky Sall yal na leen ko yàlla may muy la réaction du président Macky Sall loolu laa mun a ñaanal usmaan jërë ngeen jëf